xamante ne moom mooy euh, sëñ xaas waaye euh, comme ni ma ko xee sànq ndaxte macha allah dafa am euh, secret boo xamante ni danga ko yor muy problème ci Sénégal muy problème impuissance sexuelle mu nekk loo xamante ni li jaaxal nit mooy ba tey te ba léegi léegi nii feebar la boo xamante ni dafa bëri Sénégal bokk kenn xamul lan la nga am benn secret boo ci am est-ce que mën nga ñu wax secret bi nga yor ci ci li nga xam moom mooy impuissance sexuelle lan la. waaw xam nga boobu bu ci duggee li ma ci yor bëri yor naa ci ay secret yu bëri mais dama ci indi benn boo xam ne defal naa ko ay nit ñu gis ma defaat ñu gis man bi ma dalee def ñaan léegi tey macha allah mu yàgg ndax nit ñi xam nañ ma mais boobu mosuma koo jox kenn ba mu ñëw ne ma lag ma jox baaxul ala kulli xaalin dama lay wan lii nu mu tudd ñaam la léegi bii nii dama ci yor secret boo xam ne benn aaya alxuraan boo xam ne dañ koy bind cent cent onze ñi xam asraar xam nañ ne mooy jàpp xuwata am na turu yàlla ba mu jàpp waaye boo bindee xuwata rek kàttan boo ko calculer wàccee ko dala jox cent 111 léegi aaya bi dañ koy bind 111 fois nga xooj ko muy saafara nga jël lii nii dagg ko feraj ko ba mu sew ndaxu saafara bi ngay toggee lii nit ki bu ko lekkee ba ba ngay faatu dégg nga dootoo yoom ba ba ngay faatu dootoo ñàkk kàttan si wàllu sëy di nga am kàttan te sa awra dina yokk ala kulli am na ci yeneen garab yu ma yor nag yoo xam ne bu la neexee traitement boobu laa lay defal pour wàllu ndoxu siti ak yenn feebar yi sax yi dëñ ba pare nag ma soog laa jox bi nii nii ba ba ngay faatu laa la wax kàttan di ko am te sa awra dina dina dina dëgër dina yokk te sa soxna du la yab macha allah. te bëri na ñi nga xamante ni defal nga leen te ba nii nii nii nii gis ngeen ñoom gis nañ ci résultat bi. wallaahi barke alxuraani karim bii moom ñi ma ko jox yëpp amul keneen ku ñëwaat ne amul kenn ku si ñëwaat ne la ma jox baaxut ñëpp dañ may woo di ma sant di ma gërëm am na si benn waay joo xam ne sax yàlla rek mooy sama seere am na benn waay bu nekk Parcelles Assainies yàggul dara matul weer sax dafa takkoon ñaareel léegi bi mu takkee ñaareel la ko affaire bi dikkal léegi ba ñaareel bi muñ na ba sonn mais ba mu bëgg ba sëy bi bëgg a tas daal dem na fu nekk ndekete dañ koo takk xala bi ñëwee dama tekki xala bi jox ko ay garabu ndoxu siti yoo xam ne nii day traité wu ak ñaari fan ñetti fan rek ma daal di koy defar bii ma ko joxee ba léegi yow la ma ko waxoon la may jox daf ma kaa sax dubleel fay ma ko te des fois daf may woo di ma gërëm waaw daf may woo di ma sant di ma gërëm nee bu taxutoon ak yow bu taxutoon ak yàlla ak yow sama sëy ba tas na bu yàgg te loolu ñoo ngi ciy sant yàlla jaamu yàlla gënu ko rëy macha allah. kon euh, mbokk yi yi yéen ñi nga xamante ni macha allah comme ni ma ko waxee léegi euh, da am problème mu néegu sëy mën ngeen ñëw seet si ki nga xamante ne moom mooy ah sëñ xaas